xanaa dañoo fàtte bés yu penti diine ñoom dañoo muur xelam ba tàggale ko sagoom yàqal nañ ko liggéeyam ba tasaari njabootam toroxal ko ci nawlem ba génne ko ci biir këram mu dem ba tey yaayam jaxloo ba di misère génn àdduna ci naxaan un FG Partner Shipping, un outil gagnant-gagnant. FG Partner Shipping est une plateforme qui met en relation voyageurs et expéditeurs. Avec FG Partner Shipping, les particuliers vous transportent vos bagages à moindre coût. FG Partner Shipping vous facilite le transport de bagages grâce à un rayonnage d'environ 10 à 20 km de votre lieu d'habitation. Que vous soyez en France ou au Sénégal, si vous prévoyez un voyage et que vous avez de la place disponible vos valises, nous vous proposons de vendre cet espace à un expéditeur qui souhaite envoyer des bagages de la France vers la France, de la France vers le Sénégal, du Sénégal vers le Sénégal et du Sénégal vers la France. fg-partnershipping.com. Contact arobase fg-partnershipping.com. Avec FG Partnershipping, les particuliers vous transportent vos bagages à moindre coût.